المقامة الأولى السمعائية كن مقام بن جكري ميني مؤسكنيك السمعاء سمعاء اليمن في نتل كذي نتل نجناو طوفان مجا جمنا يوندي على النوح عليه السلام بأدنا قونتك جناو جي سمعاء مويدك بن جكري تعوان مرامون جلبينك مقام بن جكري حدث واحتمى الحارث بن همام قال ننا لما اقتعدت بين خمعنا ورنا غارب الاعتراف في جوجريت مرانك نخمنا الباب بما يقعد الطامة تقوى افتعل بي اقتعد اقتعد الفرح ولا اقتعد الحمار ولا الجمل والاقتعد كذا وكذا مي ورنا توقف في كوم بما وراي تكو غارب الاعتراض جغر تمرنك كو غارب جغر بابا خمنك واي عرب غير جولي لي لپلو سي ديكاو تي ميرم رك جام ني خامي جننا سما دك دم تي يينن برام يما دكو نيك خوري كون ماغي تي اعتراض وان اتني سوري لوما المطربه نياك عن الاطراف والاسماعيه مع xam nga ne mooy firi sori na ñu tëgg ko lan bas afaala muy an a lu di lan soril na soril na an at ni soril na ma lan moo ma soril al matrabatu ñàkk ñàkk jàngu ci alquran yatiman da maqraba aw miskinan da matraba matraba bi ñuy firee ñàkk baat bi cosaan bi ni ñu bayoo ci turaab bi di suuf كنا كتاx arab da ko woy ibnu turab waaw ngir aj ñàkk li xaaliban day dox ak tànk neen tànkam di dëgg ci suuf léegi-léeg mu bëgg a tëdd tëdd ci suuf taxoo gi mu taxoo suuf moo tax ñu baat bi ñu ñu ñu ñu ñu càppee ko noonu jëlee ko ci muy sir ak ñàkk wa am at mi sori loona ma al mat rabatu ñàkk anil atrabi ولس ماسيا أطراب موي أن يقمنا أي مرام من دنيا طلو غربا مطرابا لأصحاب اليمين أطراب يعلم كوي ملالة ديين الجنة الحور العين من أطراب لن أي أي مرام من غربا مطرابا لأصحاب اليمين غرب موي جمع عروب موي أجي سكبرم كرب جمع يدي غرب أطراب جمعنا تي تربو تربو kër bu mooy mufaddi bi nga xamee ne ñàkk tax na ma jóg dem di wuti ba sori samay moroom jamono yooyu tawaxat sànni na bii ak man tawaixu zaman way sànni jamono ila samaa il yaman jëmee ma ca samaaw ga ca yaman fa daxaltuha ma dugg ko jamono yi ngay dugg samaa nan laa fa duggee ci ban xaal laa fa duggee من القاضي الوفاضي قاضي الوفاضي بأجي فيح أمبوس الوفاض خيط أمبوس لذو عمنا أفسا مموغا يغ دفتا أو نمم أكو نانم لم يدلي فيجي من تعالي بكلي دلو آه سمم أمبوس شوح أنا مو يجنك أنا أو مدارك وما يدوك سمعا قاضي الوفاض بأجي فيح أمبوس بابي الإنفاض لأجي فين أكفقو جعلنا بفقو لا أملك دمامهم بلغة أب يبل ولا أجل دمام فك في جرابي كسما بوس مدقة أب لنجي دار اللول نت منا ساقا نتحفق مغج سمي بغا أو ما دار ولا أجد أموما فطفقت ما قرب ما صوب ما كماته وطفق يحسبان عليهما من ورق الجنة وطفق نكمات من النار آدم الحوار bañ lekkee garab ba leen yàlla terewoon ba seen yére naaw dem bàyyi leen ñu raxlewu di dagg ca xobi garab yi nag ngir sutaare bin awra wa tabiqa yaxsitaani alayhima min waraqil janna kon fa tabiqtu ma commencé ajuubu di dog turuqaatiha ay yoonam ma commencé di dog yoon ya mislal haayim kem aji gëlëm الهائم آه، بن كوعي موي بيتني خمنا سي مثال دفا مرا مرا مر لول بيتني خمنا دفا مر بملني كو غلم خبر روم جيم وا دابا مرا مثل هائم كوم ادي غلم كوم ادي غلم الهائم بالها موي ادي غلم وادول مي وندلو في حوماتها في اي مبدم جولان الحائم وندلو ادي مر واو كاي الحائم بي موي بيتني خمنا دابا مر دابا مر دابا صم زبدي وت امدو وأرود ما يتاق في مطارح لمحاتي في بيوة يسمى جنده ومساع غضواتي أجدمك يسمى قي وروحاتي أسمى غندو أرود ما يتاق كريما نتكو تبعت كريم موي كتاب أعلق دنا يلي له نيالكو ديبا جتي سمان دعوم كلام أنا دنا نيو دكار لو موم وحبا سما سوالا نيانكو تدو مجا عندك دنا كرس لو موي يلي سمان دعوم كلام وأبوح دنا تد إليه بحاجتي دنا تد سما حاجة باح يبوح موي تدنا وحنا ملاح البوح موي مصدر يتعبى بالباح باع بي حاجتين ولا البوح بكذا وكذا mooy wax mu yàq wa abuxu ilayhi bi haajati moom laa doon wut aw adiban wala boog borom xam-xamu adab tufarriju koog dana wuññi ru'yatuhu ak gisam xummat yi sama njàqare wala ma gis adib boo xam ne la muy wax daf may neex ba tax ma fàtte samay jafe-jafe ba tey man ci wut bu mu ko ne jël watur wi dana nandal riwaayatu ay nekk lem xullat yi sama maru kondañ maru tar shiddatul atash habib boo xam ne la muy nekk li dana tax dootuma yëg sama mar dootuma yëg samay nekk samay jafe-jafe loolu laa doon sab xatta addat ni ba yeggale ma xaatimatul mataaf mujjug wërga waxadat ni gindee ma fatixatul altaaf njëlbeeni ñëwante yàlla ilaa naadin jëm ci penc moo xam ne raxiib penc mu yaatu la an naadi mooy am penc waaye ifu manquus ni nga ko xamee bu dee nakira maanaam bu taarawul daaful amul alif ak laam te daaful beneen baat da ngay dindi yaaba tanwin la ko njëkkoon comme qaadin raamin daaxin naadin saa bu taaraa nag ma ne alqaadi addaaci arraami almushtari annaadi yaa nga dellu si ci barabu rafaa jar noonu nga koy bàyyi bu dee barab na xam nag fataa mën na caa feeñ nga ne annaadi ya arraaci ya المشترية بضاعة كذلك بضاعة لكن قاضي البلد ولا نادي القرية بنتم دك الياد لي دلوسي إلى نار من بنت بوخنا رحيب أجي يطلع محتوي أجي لقلا على زحام تب انت والنحيب الأتدوي نحيب موي دوي وخنا بني دك كادو نحيب موي كادو جي دك رك موي نحيب فولدت مكابي ghabatal jam'i ca digg mbooloo ma al ghaba ku ne xam na ko mooy ab gott garab yu bari yu taqloo waaye nag mbooloo mu bari mi di booxante la nurle gott wi mu dugg ci seen biir li asbura ngir naa loob majlabat damay dijjikaay ronkañ ma ma ngir naa xam li waral ronkañ yi tuuru lu tax nit ñuy jooy loobit weewatal koo xam mooy natt mbir nga xam rek waaw bi nga bëgg xam nga jël ak buum wala bant bu gudd dugal ba samp fam yem nga génnee xool li tooy ci buum gi wala ci bant bi xam ne ndox mi ñu la toll léegi la sofóor bi dana ko def ci bu bëggee xam euh, gasoil wala essence bi ni biir otom lu ci def ñu toll bu ci dugalee bant bi ba mu sëfee mu génnee xool li lépp lu ñuy bëgg a xam rek nañ koy nattee ba xam ko léegi damaa bëgg xam kon maj la ba dana lu sabab ronkañ yi di di jéguñu faraaytu ma gis fii buxratil xalqa ca digg jóoba saxsan jëmm joo xam ne saxsal xelqa ku ràpp ku woos ab bindin la xale yi nekk na ci moom uxbatu siyaaxa bagage ab tourisme waaw comme tukkikat yooyu nga xam ne dañuy dox rek di dem di wër di xool loolu la ñu tuddee saa ñu koy def mooy ak suyaax ولا أصائحون جفج موي سياحة ولو نيال نكو رمنة النياحة رمنة تلوك دجتو مانم كاد جي دفا ملني كاد كوي جوي جم جو خمنا كاد جي كم كاد كوي جوي وهو يطبع من مول الأفجاع الصدعية بجواهر لفظه تورس جوهر باطم ويقرع من فق على الدجية بزواجر وعظه كوي جاجي ndege ab waaraatikat la boo xam ne na muy waxee day saju saju mooy waawi na muy waxee daa xaw a niroo waaye daaneel yi niroo saju mooy wax joo xam ne daaneel edd ñuy niroo te bokk la way nag lu muy teel waaw comme ni nga ko gisee ci téere bi xata addat nii xaatimatul mataaf wa hadat nii fatixatul altaaf ila naadin raxiib muxtawin ala zixaamin wa naxiib lu mit dee saju rek léegi nga gis ci alquran ne wa samaai wa taariq وما أدراك ما الطارق القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ak yu mel noonu dana ma ko digg géew ba jëmm joo xam ne nii la ma ngay wax lu am solo di وقد أحاطت بالممتاز به كمم أغلاط الزمر ويجعل مبولويا الزمرة موي جمع موي الزمر سورة الزمر إحاطة الهالة كم تاج الزويل بالقمر كباح لك لا يقول دي أنا قال يا رمو ملني أو ردو ياتو مو فورني عن غير راتيج ويموت بالهالة لون مي وري وري كيف يقول نح نون يبولا مي وري وارا تكبين كيف يقول نرى نيان كي بوعد خموني وعد إحاطة الهالة بالقمر وإحاطة الأكمام بالثمر wal ak maami ak cambodia bi tamari ci meññet al ak maam mooy jamu kimmu kimmu mooy garab gi bi commencé tontóor lii njëkk feeñ xam ne mooy ëmb tontóor bi noonu loolu ñu tuddee kimmu di ko jamu ak maam ni muy peegee tontóor bi boobu meññet génnee mu peegee meññet bi noonu boo xoolee garab gu mel ni guy da gis loolu di ko wër noonu ak yeneen garab yëpp léegi bi loolu a nag ilayhi li aqtabisa min fawaidi faddalaxtu ma soox jege ilayhi jëm ci moom li aqtabisa ngir naa jumlu naa iqtibaas naa leerlu xabas mooy jumu sawara sawara koy tàkk ngir naa tibbu sawara ba am ak leer naa leerlu min fawaidi balaa ngay jàll foofu ba tey ah, ah, dalaxtu li muy firi mooy ma dox doxin wax ne daal jiwu yi dañuy jegewante lool ngir kuy dox ci mbolo mu xat xam do meuna mën a yu gudd do meuna waaw faaw da ngay dox melni ko meunta dox melni ko xox te da nga amul foo jaar rek motax ko fa dalastu ma soof ilayhi li aqtabisa ngir naa jumlu min fawaidi ci njëriñam wa altaqita ngir naa for bax da faraidi lenn ci way wetam fa sanatoo dégg naa ko yaqul muy wax xina qabba jamono jam gaawé fi majali ci wëndeeloom waaw ma dégg ko mu wax ba mu yàgg mu mel ni ko wëndeelu wëndeelu bu gaaw كماتي يكت كادم دي وعني فسمعته ويقول حين قب جمنا جم قاوي في مجاله وهدرت يكتك شقا شق ارتجاله شق شقا ويبلع ارتجالا شق شقا موي جلم جيا arab dañ naan innahu la du cheikh cheqatin ngir kàddu may nurle kàddu gërëm waaw léeg-léeg ñu ne diw day mooy cheikh cheqatu qawmihi mooy ka ca gën a fagaa ka ca dàq wax dégg naa ko muy wax li ñu yem foofu ba suba incha allah